awalan li may njëkkee mooy na nañu xam ne sëñ tubaa lii dal nit ñi tey moom dalut sëriñ bi sëñ tubaa moom jullit ñi la xam te te lim lim jàppoon mooy julli ummatu sayduna muhammadin bépp mooy seen kilifa te yéene na leen jàmm loolu waxe na ko nu ne waxe na na ko fu ne bind na ko bind woy na ko wesar na ko lu ne wax na ko ci ci umma islamiya bi la jaboote mustawata taxas benn boor kóllëre googu séq na kook ñoom rawatina kóllëre bokk gi ak bokk jëfi yàlla kenn ku ne xam na li sëriñ bi bokk ak ñooñ tarixa yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi te daan ko séq ak ñoom di bindante ak ñoom ay lettre di yónneente ak ñoom ay hadiya sëriñ bi bu masaana am mbokki julliti tijaan yi fekk si ko njaareem sëñ bee leen di lalalal boppam mbalaanum wasifa wax naa ko sëñ mbalaanum wasifa sëñ bi moo leen koy lalal mook alhaaji Malick si yónneente nañ ay bayit yoo xam ne bayiti cofeel la kenn ku ne nangul sa moroom ji ak cofeel hadiyatun musibuha istilaabu mahabbatin yaa ayuha alxubaabu la ko alhaaji Malick wax addi yaa ngi joo xam ne li ko tax a jóg mooy so sopp la yow soppi bu mag bi sëñ Tuubaa tontu ko moom itam jasaakumoo xayral jasal wahaabu wa fi safal widaadi laa tartaabu la ko sëñ bi wax yàlla na la yàlla fay ngeen ci fay cofeel gi ngay sàkku ci man bul am sikki sàkk ci na sopp la loola dañ koo jàpp di ko suuxat di ko fàttalente boo yéree mi nanul baaxil xadim sëñ Basiru bind na ko alaaj Maalik seereel sëriñ bi seere su rafet ci ci ci ne sëñ Mbàkke Buso mi wamatu topp ko ak ñeneen ak ñeneen doy na tegtal ci ñu xam ne sëriñ bi mbirum yàlla la yor loolu fu ne wax na ko ko fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen foo fi dugg ci kër loola noonu la doxee ba ci Cheikh Mouhamadul Bachir bi mu fi nekkee du dafa wéyal loolu di ko siq ak ñoom di di di seeti ak di leen di di seetante ak ñoom man maa ngi fàttaliku bi nga xamee ne sëriñ Habib si gaañu na ci Gàmbi maag sëñ Moussa Bassirou ñu ànd di ko jaale ci sëñ Abdou Aziz Dabakh bi ñu egsee nuyoo sëñ bi da ne ana mu ne ko mi ngi nii mu ne sëñ ne ko bi ma mujjee tiib ci sëriñ Bassirou Paate ma dalal maa ngi toog kenn nettaliwu ko maa ngi toog sëñ bi duñu nuyoole par benn ba ma jox ko loxo sëñ bi ne ko kii moom sëtub xaali baaba joxumpa la sëñ Abdou Aziz daal di siggi daal ne laa dal ne ma laa xarwa an takuna qaadiyan loolu la ma ci tegal dal ne sëriñ bi bi ma mujjee tiib paatee ma dalal sëñ bi ne ko loo wuti woon mu ne ko booba naar yi dañ maa soxla tukki bu sori te bu ma demee dinaa yàgg ci xaahira xaahira ma ma ne leen maa génn réew mi te tàgguma sama kilifa daal di ñëw tiib sëriñ Basiiru lalal ma basangu romb jaan génn teg pliaan ne ma Abdou lu doonoon say tànk ma wax ko ko mu ne ma boo demee bind leen leetar ne leen sama kilifa tere na ma yow liggéey bi lay xaar ci réew mi moo ëpp doole ci yow génn ci bitim réew di liggéey li ay naar daal ne sëñ bi looloo ma tax a fomm dégg nga nii maanaam nii lañ doon séqe ñoom ñaar keroog bi ñuy jaale si sëñ Moustapha buntu kër sëñ Abdou Aziz Siñoor la taxaw Cees lañu jaar jël may sa Sekk sëñ Moustapha ne sëñ Abdou Aziz Siñoor waatul bu buyuuta min abwaabiha yow yaay sama bunt fii fépp fu ma fi jëm yow laay àndal nga wax ma fi ñuy njëkkee ak fi ñu war a mujjee mus ba bi bi sëñ Moustapha bi muy bay toolam yooyu ci Ross Béthio am na bis boo xam ne dafa xool gis ay tool yu kenn bayut mu laaj ne tool yi ndax ñu ngi koy bay ñu ne ko déedéet mu ne ko ko moom ñu ne ko sëñ Abdou da baax yónniwul ndaw ci sëñ Abdou dafa woolu ki yor tool yi mu ñëw mu ne ko jox ma këyit yi tool yi Sëñ Abdou Aziz yow maa la ci gën a yay jël tool yi di ko bay te yëgalu ko ko Sëñ Abdou Aziz na sëñ Moustapha xasida gu gudd goo xam ne mel na ne loolaa ko waraloon samiya rasulillahi najla samiyihi xafiidi xadimil Moustapha man baayil xayri xasida googu Sëñ Abdou Aziz Dabaax moo ko woy sëriñ Moustapha dem nañ fa benn bis mu fekk ko jag saaw sëñ Abdou jooy na xàcc ne ko Moustapha na nga góorlu te xam ne kërug lislaam gu ubbiku fii ci Sénégal yaay taawub kër ga loolu lim ci jublu mooy melaw sëñ Moustapha ak jikkoom waaye kër gu ne boroom kër ga am na taaw te jikko ju rafet mooy li ko waral loolee ñu di ko sàmm muy wéy ba waxtu wi sëñ Moustapha digganteem ak Maodo Touré di jarbaat suñu sëñ Abdou leer na ñëpp man mii di wax ak yéen ak sëñ Abo Sagata moom sëñ Moustapha Bassirou sëñ Moustapha ñëw na njaareem koor jël sëñ Moustapha dem ne ko demal woon wool ma Maodo Touré te nee ko buy ñëw na indaale ay bagaasam ndax du ñëw rek waññeeku sëñ Maodo Touré ñëw njaareem sëñ bi téye ko ay fan kër sëñ Muntaxa la daan nekk su guddee ñu ñëw njaareem ci kër gi mu ataayaal leen sëñ Moustapha ataayaal leen ba benn guddi mu ne ko ñaar ñii laa bëgg bu ñu waree nga yóbbul ma leen Égypte ñu def dirasa taqlidiya muy man mii ak sëñ Chouaï bu moom nga xam ne sëñ Moussa gis na ne moo yilif Maodo Touré ndax woolu na ko téye ko ay fan kóllëre googu mi ngi dox ba waxtu wii sëñ Moussa naawel dugub ji sëñ Moustapha daan jox Maodo Touré at mu ne sëñ Moussa yokk ko dégg nga bi ñu waree ci la sëñ bi ci la sëñ bi désisté ci loolu daal ne man daf may téye jël sëñ aboo daal di koy yóbbu tiwaawoon Maodo Touré yor ko di ko toppatoo sëñ Saalum sëñ Moustapha Bassirou bi mu nekkee Tunisie sëñ Moustapha Moustapha Cissé bu pire la ko sëñ Moustapha dénk ne ko yaay léppam na ne sa kër yaa koy toppatoo kon nanu xam li nu séq nu nu sàmm ko te te xam ne yii di xew amut njariñ li am njariñ mooy dafa am lu nu bokk te mënuñu ko seddoo muy réew mi ñii di pénétrer di dugg ci suñ biir ngir yàq bu ñu leen déglu yàlla yaatu na kenn ku ne am na cër bu la yàlla jox am na am na ndab lum la tibbal sukkuloo la ca ca nga sukk ñii nga xam ne dañuy dugg ci biir groupe yi di def ay intoxication ngir yàq nañu leen moytu li fi ne mënuñu koo yàq mënuñu ko yàq lott nañ ci tuuti nañ ci mënuñu ko defaru na ba noppi kilifa yi amuñu jot sëñ Muntaxa bu fekkee ku di murit mooy sa kilifa doy na la référence ci mosoo dégg mu génne benn baat buy tàqale jullit ñi musta am te du am ñu ca ca Cheikh Mouhamadoul Moustapha ba tey jii ñu ngi sàmm ndono li di ko dëgëral mësuñoo teqale kenn kenn kër goo fi dugg noona la demee kër goo fi dugg sëñ Tuubaa noonu la demee ñoom Cheikh Abdoulaye Niass bi mu ko yónnee tafsirul jalalaani bay ya ca sëñ ba bay ya Cheikh Abdoulaye Niass binduloo Ahmed sëñ sëñ Khalifa Niass bàyyi Ahmed Khalifa Niass xasida gaa ngi fii daw ba léegi atxaftana bi kitaabin la nadira lahu arwa xalila sadana baada luwaahi la ko wax may nga ma téere boo xam ne moo faj sama maru xullooñ wi ma amoon huwal jalalaani tafsirun li mansibikum la ci teg téere bi nga ma jox yow suñ tubaa téere bi yow lay wone loola ñu ngi koy sàmm ba tey jii ñëwal fii ci Saalum dem kër Maba Awa Ndiaye ab dëkk la bu ne ci wetu Saalum Cheikh Ibrahim Niass Baye ñas am na fi turandoo woo xam ne la ko waral mooy jaxasoog Cheikh Abdoulahi Niass ak Cheikhul Khadim moo moo waral Maba Awa Ndiaye di taalubeb Sëñ Tuubaa ba noppi am doom ju tudd Baye Niass ruuxul adab ruuxul adab bi ko Baye Niass bindee sëñ Basiru la yónnee lim njëkk a bind sëñ Basiru la ko yónnee mu xool ko ngir joxe ci fikraam Barham Diop wax na ma man ci téléphone booba ma nga ca Maroc ma ne kawlax sëñ Cheikh Fatma moom sëñ Moustapha Bassirou yónni woon ma Medina bàyyi ngir ma toppatoo relation waa kër bàyyi ak sëriñ Bassirou Barham fekkuma ko fa mu ne Maroc ñu jokkale lañu téléphone mu ne ma xam naa ci dara ndax ruuxul adab di ko bàyyi bindee sëñ Bassirou la yónnee nusxa bi sëñ Bassirou di ko xool bi sëñ Bassirou nelawee ba tey jii njabootu bàyyi jotuñu téere bi ndax dafa réer ci bagage yi Cheikh Mouhamadul Bachir. ki ñu wax Cheikh Ahmed Dame te ñu wax ne sëñ Touba lañ ko tuddee Sidi Niass. mii taawam wax nañu ci kaw lax ne bi Cheikh Mouhamadul Bachir di nelaw si bàyyi dafa génn tukki dem ci benn mu'tamar ànd ak si Ahmad Daan bi bàyyi waree jël parole ñu déy ko ne ko Cheikh Mouhamadul Bachir génn na àddina dafa déy ni mu dendaloon ne leen samam xel naaw na amatuma lu may wax ndax ñàkk naa koo xam ne aw ko toll ne moom ci àddina kon kon Baye Bass nañu teey nañu teey te bàyyi li ñuy def te xam ne lin bokk mënuñu ko séddoo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.